waa mais de de de un yàlla ko euh, parce que nag nit day sabab sabab yàlla yeggali am baat bu ma wax sànq ci sëy ma koy wax ni sëyeegul ak ni sëy gis nga bés bi bés bu sacré la bés bi rek. lañu may doom pour mu yónni waajuram papa jógal ma yónni la loolu ndax mës nañ koo gis ci sëy rek lañ koy gis papa jóg leen ma yónni leen say waajur jóg doxali la sa yónnente yàkkamtee wëlbatiku ne la li ñu yónni woon dox nañ ko lii lañ ñu tontu ak lii lañ fa jëlee moo tax du lu nit war a fowe sëy parce que boo xalaatee tàkkusaan bi ñëpp mag ñeeg ñëpp bàyyi seen soxla pour yow rek sa soxla moo tax sëy lu nu war di téye la euh, ba yàlla def li nga xam ne mënta ñàkk ay da ñu koy mën noon naa ko maye comme mën naa ñaan si et mu nekk na xale bu baax moom laa ko wax sànq ma ne gisuma say waajur fa ñu tëdd mais tàlli nañu ak sa maam sàmba Jabare ay da nag xale bu baax la bu yaru bu andak dal bu demul dikul lan ngay wax ci ñi nga naan ci ñi di wax ni euh, papam ak yaam biñu ñu aduna yagul rek mu marié wu ñu bëri dañ dañ doon wax lu ta xaru ba ci kanam. non non lay la ñoñ di wax xamuñu dara ci li ñuy wax mom bes bi tay yalla non la ko dogalee won il faut ay wajuram dëddu muy dogo sey lu yàlla tudd la ñu def lu dul ñaanal ko rek gis nga nag réew mi lek léeg dañuy wax rek te li ñuy wax maîtriser wuñ ko xamuñu ti dara nan ko ñaanal rek te ñaanal ko mu jig ko diw takk nan ko ah yàlla na ko jig deex na daa seet diw am na lii assez ah, normal waaw diw day ah defal nañ ko lii ci teraanga c'est normal yàlla tudd na ko c'est normal rek gi nga yow li ngay ñaanal sa bopp boo ko ñaanalee ñëpp àdduna normal li nga yéene sa bopp yéene ko ñëpp est-ce que yéene nga sa bopp torox waaw lu tax nga koy yéene keneen gis nga nag boo ko defee yow dangay ngay torox yàlla du la jàppale yàlla nee na booy ñaan sax maasaaleel ñaan gi boole ci ñëpp pour man yàlla ma nangul la ñaan gi nan ko ko ñaanal mu jik ko ki ko jël soxna tamit nekk nit bu baax Abbas Diadio mooy jëkkëram nit bu bari yërmande nit bu mën a téye jigéen yaa ngi dégg nit bu mën a téye jigéen nit bu baax bu am maanaam euh, am yërmande it nag ah am na ay soxna moom laax ay da ma ni ko euh, sa mag yooyu muy aawam ak ñaareel def leen référence def leen royukaay def leen say mag toppal seen ginnaaw euh, te déglu sa jëkkër na nay sa baay nay sa xarit daa sit yàlla na leen jig ah mi ngi noonu nekk porteur de voix fi dëgg la waxu Aïda Samba moo ñu indi mais mënuñu bañ a wax actualité ñu gis tey série yu bëri dañ leen arrêté. non tey nanu wax ah, may ma ma ñëw tey nanu wax rek ci mariage ay Aïda Samba bi. loolu beneen yoon. Hmm. ma jox leen beneen interview ñu waxtaan ci mooy nanu def ni mu war a jaaree yoon daa sit mais tey Aïda Samb rek la ñuy waxtaan waaw yaa ngi dégg